السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki leeral pas-pas wahaabi fi xayaakumullah ñu leen di nuyu di ñaan borom bi borom asamaan ak suuf mu war ñu defal tawfiq bark seewul xaddi waaye di bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoo ngi ci bërëb bi suñ mënee wàññi vidéo yi bam def administrateur yi dina am solo ak audio yi te ñu def vocal fan yi nag jàppoon rek mais alhamdulillah dellusiwaat nañ ci liggéey bi yàlla ñu borom bi boole defal taw fii nga rafetlu li fi jaar yépp am na solo voilà xam naa mu ñëw am ay question yoo xamante ni dama koy posé sama taalibe bu baax boobu nekk ci biir borom xam-xam boobu di sañ xaadim incha allah alhamdulillah sañ xaadim maa ngi lay nuyu baax di nuyu waa leeral pas-pas bi si di sàkku nga leeralal ñu laaj yi nga xam ni moom lay laaj première laaj bi may jiital mooy ñaan yàlla ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu sax na ci sunna wala saxul sax na ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala saxul ñaan yàlla ci barki sëriñ loolu sax na wala saxul wa juumul nag tawassul la tawassul googu nga xam ne da ngay tawasul jëmale ci jëmm nit ndax loolu sax na ci alquran wala sunna loolu mooy sama première question bëgg nga leeralal ñu bu fekkente ni am na yenn ay asar yoo xamante ni bàyyeekoo na ci salaf nga ñëwal ñu ci alhamdulillah yaareelu question bi mooy waat ci kudul borom bi waat ci kudul borom bi lan mooy atteem ci lislaam loolu question la ndax barke sëriñ diw sàngam loolu waat la ci diine wala nekkul waat euh, bon bëgg nañ nga ñëwal ñu ci question yooyu mu posé ma ñëwaat ci yi nga xam ne moom laa ciy teg euh, alhamdulillah waat ci kudul borom bi dafa am ñu bëree bëri ñoo xamante ni boo nee barke sëriñ diw sàngam ñu ne la bokkaale nga borom bi ndax loolu sax na ci alxuraan sunna ni bokkaale la ndax loolu sax na ne waat la wala du waat bëgg nañ question yooyu leer beneen bi mooy euh, tawassul jëmale ci jëmmu nit moo xam ci barke ak lu mën a doon bu fekkente ne sax na ci alquranul karim ak waaw waawaana ñi koy dàq euh, ban période ci lañ gën a fi ci diine ji ndax salafu saalih ñoo ko doon dàq wala ñu ñëw seen gannaaw ñoom ñooy dàq lool ci seeni xalaati bopp ak ñi koy def yan argument yi lañu am ba tax ñu koy def ci njàngalem yeneen bi bismillah euh, alhamdulillah beneen question bi sëñ Xaadim moom mooy euh, damay gis benn mbokk buy tafsir waaye ci tafsiram boobu dama ci gis ay lënt yu bari ma bëggoon nag mu leer ndax moom dafa wax ni dafa gis ci réew mi nit buñ duggee ci oto wala ñu nekk ci yeneeni mbir bon ci luñ mën a nekk rek léeg-léeg buñ nekkee ci ay kenn xamul danse téem léeg-léeg ñu ne sëñ fàllu wala ñu ne sëriñ faade wala ñu ne Baye Niass wala nangam léegi woo googu noonu ñi woo seen sëriñ ci jafe-jafe loolu dafa mel ni dellu ci istixaasa mais dafa am ku saxal ne loolu moom shirk euh, bon bëggoon nañ loolu itam mu leer daal ndax man moom su ma amee problème wala ma nekk ci jafe-jafe sama maam laay njëkk a woo woo googu nag ngay woo nit ñeneen da nga waroon woo yàlla woo gi nit loolu shirk la bëggoon naa itam ba xam ndax loolu moom shirk la euh, bu fekkee ne du shirk ñu leeralal ñu bu fekkee lu soxla ci alquranul karim ak sunna muy istixaasa ñu dimbali ñu si ñu xam lox subaxaa ci mbokk yi di tafaar bi ci jaar di nax nañu ci cadre diine bëri na euh, alhamdulilah sëñ xaadim waaw sama beneen laaj mooy lan mooy atteb sujjóot ci lislaam sujjóot moom mooy lan bëgg nañ nga leeralal ñu lan mooy sujjóot ak ñun murid yi li nga xamante ni moom la ñuy def loolu lan mooy atteem ci diine sujjóot la wala du sujjóot après gannaaw bu leeree ba pare am na ay mbokk yu sukkandiku ci ñun murid li ñuy def ne loolu sirk la bo fekkee sirk la bëgg na nga bëgg nañ nga leeralal ñu ko ñi taxaw di ko dàq fan lañ taxaw di ko dàq ak ñun murid yi taxaw di ko def nañ lañ taxaw ba di ko def loolu bëgg nañ mu leer incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu majmuata leeral pas-pas ñu leen di leen ziyaara di ñaanal borom di ñaan di ñaan borom bi tabaraka taala mu defal leen tawfiq te defal ñu ko ñu ñëpp waaye sëñ Nour bu dee sa question bi nga xam ne yaa koy laaj mooy ñaan borom bi tabaraka taala ci barke bi yonte bi alayhi salaam wala ci barke bi ceew muy tawassul ndax sax na jóge ci yonte bi alayhi salaam ah kay sax na kay sax na jóge ci yonte bi alayhi salaam ci yi wér soxna yaay asar yo xamne ne it wér na soxna ci yooyu asaar am ci xadis yu wér am ci xadis yo xamne min tariqi min tariqi al asanid amna khalal bu ci am waye nag dañuy wax ne leg leg ak asar dana wére ca bi kasrati turqiha so surtout ci buntu yi kon loolu saxna borom xam yi saxal nañ ko ورحمة الله ميتي النووي رحمه الله كبر بيبري سؤال منهاج وكيف رأى الليلة رأى البريبري وكذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى لولا سخنة ودميتي نهاية القراء ابن الجذري ويترجم عن أي بروخة يبري بردن لان جيس عندك دم فرق بغداد صحيح توصل قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ودي مجي تذكرة الحفاظ ولا قريب سير أعلى من هجي أمني ذهب بلين, بلين ترجم على ديوحني وقبره آه، يستجاب الدعوة فيه ويكون مجي بام بيرم توصل نيان تموم إذا من واي بدي صح جيم صح جيم عليه السلام آه، ما يحدث بابو غخمنا ابن ماجا نفن نقشي سند بوير مجي جركو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه وخني عليه السلام دا من خرج إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من شاي إلي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت, خرجت اتخاء صختك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر إلا أنت بعد واحد كيف هو هذا أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له واستغفر له سبعون ألف ملك حديث بابو ابن ماجه نكن لكم سننم أه حديث بابو يدعو عليه السلام بدان وحني يدعو عليه السلام كيفهم لأن كيف وحني لا جن كرم dem ci dem ci jàkka ja ngi fukkee ne julli day dox ne yàlla maa ci àq ci àq nag am ñu koy firee ci dara la ñu ko ñenn ci borom waxe ndax nit ki tawassul ci daraja yi yub asara wala wala gi rek kooku buy tawassul ci darajaam manzilaam ñaari taabir dagg na ci benn mu ne bi jaax wala bi xaq al xaq ak al jaax bu dee ci wàllu tawassul nga bokk benn maanaam bi ñu firi mooy bi manzilatihi ilayk bi manzilatihi ilayk gis ne woon xadis boobu yonent bi salaam daa jàngale tawassul ci bépp jullit boo xam ne daa gëm borom bi tabaraka wa taala bépp jullit bu gëm borom bi taala rek boo demee ci eh, amalu yawm wal layla bu ibni sunni ibni sunni eh, ibni sunni rahimahullah taala génne woon na xadis bi ci sanad bi yonent bi salaam waxaat ko yonent bi salaam wax ne manam xadiisu bilal ibn Xaaris moo wax ne yudaa salaam moo tax génn jëm ci julli ga day waxne bismillah amantu billah wa tawakkuli ala allah wa la hawla la quwwata illa billah اللهم إني أسألك بحق سائل عليك وبحق مخرج هذا فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة نقول اليوم ابن الجندي رحمه الله تعالى نتليه ولما جاء عمليا والليل بتعبوا ابن عيد الأسبهاني رحمه الله ومن كذلك الجن والنفس أبي سعيد آه، أبي سعيد ولما جاء البيهقي كذلك الجن والنفس أسألك بحق سائل عليك بوب بيهقي الجن والنفس تا كن لو لم يجيك tekk كن لو لم يجيك muy توصل لصحلة tawassul في sax la diggante ci ñu wax ko te saabiin ak salaf saalix mus ñoo dañ di ko ñaan léegi léegi kon bu fekk salaf sax daa nañ ko jëfe kon li muy tekk mooy taabiin ak salaf saalix mus ñoo dañ di ko di ko di ko tawasule maanaam même tabarani al almuajam al awsat nettal waa na xadis bi alhaysami ca aljawhar almunazam daan nes bi isnaaduhu jayid daal di wéral càllale gi الهيثمي كيدا ديرل يعني كالك داني كالك كالك وير كان كان لولي دا بيتك تلح مبوكا لكوي تكتلي بتي هاي حديث بابا خمنا سيونا لول تنجي نتل لكم نفائي بأي لكم بيحقي نتل لكم طبرا نتل لكم بإثنان صحيح حديث عثمان بن حنيف mu nekk saxaaba bu siiw nga xam ne daa wax ne yéen itam maanaam xadis boobu wax ne yéen ay salaam benn gumba dafa ñëwoon bi mu waxee ne ko udu bu ñëwee ci ma ne ko udu laaha ay yuaafiyani fa qaala in shi'ta da'awt wa in shi'ta sabart wala in shi'ta da'awt wa in shi'ta sabart bu la neexee ma ñaanal la bu la neexee wala nga muñ wax wa xayr yonent bi salaam jëmbi daay dama bëgg nga ñaanal ma koy fa amarahu an yatawadda fa wuduahu ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا محمد إني أتوجه إليك إلى ربي في حاجتي لتقضي الله شفعه فيه فعال وقد أبصر حديث بكم يوم ورسان أختي المزيجين نكو الحاكم كذلك وجينا كوشي المصدرك كم نكو البذار جينا كذلك من حديث بوخان حديث يروي الله دون دي الباني لكنا جي اي جيما جيما تيوي كي جي جيما كو كي كتير بابد التوصل وأخو أنواعه ابن حنيف وحني والله ما نجي جيالا ني تقلق ونمك لمن يقوم بقى بقى يند عيسى لام دقري لبانك ودفع دانيو بمين أقوم بني مسلمين كون ولم يتك محلو توصل ما كلا Euh, même Buxaari boo dem ci taarixul kabir génne na ko kazalik loolu li muy tekki mooy kon kon kon léegi nag ñi nga xam ne ñoo koy daq dana am yi ñu faral di tegtaloo ci bi ñi nga xam ne ñooy dàq tawassul euh, dana dana am lu ñuy tegtaloo loo nga xam ne dañ ko faral di rab loolu mat naa xam-xam naa sax fiir jotaayam waaye te buñ àggee ba àgg ci des na ko des na gaaral leeral yooyu am ñuy wax ne yonent bi alayhi salaam ñenn ci ñi nga xam ne ñoo koy dàq dañuy wax ne yonent bi alayhi salaam bi muy def lii maanaam bi mu koy def lii boobu mi ngi dund loolu ay lënt la yoo xam di yaaw salaf yi dañ koy faral di yulle nekk ay lënt yoo xam ne daanaka taxawut ndax sax na comme ni ko bay xaqi na tari ci asunu kubra wa kadalika tabarani yu rahimahullah ci ne euh, gumba googu maanaam benn waa waa ci jamono Usmaan bin Affaan ci jamonoy xilaafam dara ñëw ci ñoom ak ci ñi nga xam ne ñu ma koy asalaam jàngaloon masaana ñëw Usmaan bin Xanifa bu masaana jàmbat da koy tuddal boobu nga xam ne moom la gumba gi waxoon yu di asalaam da ko dama ko jàngat kon loolu saxaaba yi ko jafe kon loolu la muy mooy loolu lu sax la te loolu tabaraan ñett na ko ci Hmm. المعجم المعجم الكبير كذلك bokk na ci lu koy tegtale nga xam ne bari na lool Bayhaqi ibn Abi Shayba génne nañ asar boobu nga xam ne muy sans bir nga xam ne nit ñi benn bis ci ci maanaam bekkoor met da leen daloon ci jamonoy Amar ibn al-Khattab nga xam ne tawassul gi day tekki ne ci ay islaam waaye daa jalgati sax jamono jamono yi xilaafa Umar radiyallahu anhu wa abah saaba yi dañoo amoon benn bekkoor bu métti bu leen daloon Bilaal ibn Xaaris xam ne ci di ñëw daal di ñëw ci ya yu ay ummatik fa halaku ya, ya, nga ñaan subhanahu wa ta'ala mu màndal mu wàcce taw bi ndax sa xeet wi kat alku nañ te foofu fekk na yib acc na faat na bi yàgg ñu waxee loolu ci nelaw yusuf alayhi salaam dikkal ko ci ay nelaw daal di koy xibaar ci ne nit ñi kat balaa bii nga xam ne moo leen dal yàlla dina ko teggi nga xam ne foofu jàngat bi ci gént gi waaye la muy tekki mooy yi saxaaba def def sahaba bi nga xamne moy bilal Bilaal ibn Xaaris ñëw gim ñew ci xabri Yonent bi alayhi ak di ko wor woote dafa la Faatina ci sakku ci mom maam bi ñaan yalla ci darajam lu teewon bilal ibn harith ñaan borom tabaaraka taala ndax yalla Yonent bi alayhi jangal leen julli di abdul day ñaan abdul day ñaan addu'a wa ibada borom taala bayil leen ci alquran gi nga xamne fa sur ñang ci jang yalla ya di leen wax ne ودعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان waaye nga gis ne kon ànd ak loolu lépp nag Bilaal ibn Xaaris ma ngay jubali ci qabiila islaam te ñaalut moom dong li muy tekki kon doron. daa gis ko gën a jege yàlla koo xam ne dara jaam màgg na fa yàlla lool mu jaara ca moom na loolu gis na ko leerlaat ci yeneen i jotaay xëy kon loolu la muy tekki mooy tawassul lu sax na tashafu ak kazaalika lu sax la loolu tawassul lu sax la tashafu lu sax la boo tax boo demee ci borom xam-xam tamit noonu ngay gis noonu lañ koy tasilee tawassul ci daraja yonent bi alayhi salaam boo demee ci borom xam-xam boo demee ci qaadi ci ashifa gis nga بيتو حال اخر بو خا نني مو غن سيو تي امام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من بودم سوكي تي شفاء السقام نون لوي لير لي اصلا هودي كذلك تي خلاص الوفاء نون لوي لير لي دي لايو دينس دي ساخال ني صرف الصالح توصل لين دون ديف ا آه، بودم جال هيثمي جال الجوهر المنظم نون لوي لير لي كذلك روايه بو خا نمو لقد ايات طهنتي درقاني بودم جال الشفاه noonu la koy leeralee waaw moom day wax ne ñi nettali rijaaluhu siqaat laysa fi isnaadiha waddaaun wala kiddaab nga xam ne al imaam Maalik rahimahullahu taala dafa digal amirul muminin mu daal di barke mu daal di tawassul ci ci daraja yonent bi alayhi salaam bokk na ci loolu it mooy ci jamonoy Umar ibn Xattaab kon li te loolu mi tekki mooy tawassul doonu salaam dagan na xadis boobu nga xam ne siiw na loolu ci Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu yi nga xamee ni ci jamono ci xilaafam gi dafa tawassul ci Abbas ibn Abdul Muttalib bàyyi tax yonent bi alayhi salaam loolu riwaaya Anas ibn Malik mi ci Sahih Bukhari radiyallahu taala anhu warda Umar ibn Xattaab bi nga xamee ni am na bekkoor bu am ci at moom nga xam ne moom la jox atum Ramada atum métti Umar ibn Xattaab daa dafa dafa dafa dafa istisqa ci darajay Abbas loolu nag am nay lënt yoo xam ne gars yi danañ ko faral di kii waaye daanaka yooyu fii du place am ñu bastu ko ak di ko ñaqaaj waaw xadis boobu nga gis ne xadis wér la riwaay Buxaari bi ak yeneen riwaay yi Umar xalaat wax ne allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabi nabiyina sallallahu alayhi wa sallam فتسقينا وإنا نتوصل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا waaye nga xam ne Umar ibn Khattab day wax ne yàlla kat ñu ngi lay ñaan ñu ngi tawassul ci yow ñu ngi jaare ci yow ci sa yonent allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina farasqina yow yàlla kat ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan dañ tawassul ci barkeb sab yonent waaye nag actuellement léegi nag gannaaw sooy sab yonent nekkatu fi ñu ngi tawassul ci kenn ci nit ñu baax ñi kenn ci wàllu yi saxaaba yi wàllu lañ comme ni ko cheikh islam tamit di saxalee ca التحفة العراقية وكذلك تدير بوبلي الفقار بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكذلك تدير بوبلي النبوات أي ولو لن يوخمني لن يؤمن أي درجة أم أي واتواي am ay mukashifat am ay mbir yu yéeme comme ni ko Cheikh Islam di hmm, saxal na ko moom ndax ay nit ndax nit day am wàccuwaay fa yàlla wàccuwaay wu rëy woo xam ne day tax nit ki day ñaan ci jaam yàlla di def loolu yi loolu nag bokkut ak ñaan jëmmi nit ñaan jëmmi nit moom daa xaram loolu ko def ak bokkaale dëgg-dëgg ci mubaasharatan ndax jam ñaan jëm nit moom boole bu ci hadith bo nga xamné ne zara tan nako ma gis na hadith bo nga xamné ne Haythami wéral na sanad da nga gis na nga gis ne Yid ay salam day wax lu mel non nga xamné hadith xadis boobu ñaan jëm nit tay fasoo ne moom daa am rububiyya fasoo ne moom daa am uluhiyya kon lool du sunu waxtaan sax tay gi waye li nga xamné moy sunu waxtaan moy tawassul ma gis na kon amru ibn Khattab hadith boobu mi ci Bukhari mi ci mi ci téere yi dul Bukhari tamit kazalik عبد الخطا لا وهني اللهم انا كنا نتوصل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوصل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون يلا نيون دي بنجان نيان دي نيان سي درجه يونس عليه السلام دنج دان توصل تي يونس بي واي غينا يوت اسام نيكو ليك نيغي توصل تي ولي تي بن ولي تي ولي كون لامي تيك موي توصل دغان من نيتو نيكو من نا توصل تي waliyu yàlla ndax Omar ibn Khattab ànd ak loolu lépp xadis boobu ñu ko nettali bëri na kon loolu la muy tekki mooy ñi koy dàq yataxabatuuna xabta ashwa wa yamshuuna mishyata awja ndax Omar ibn Khattab gis na ci xadis boobu ànd ak daa bokkoon ci alxulafa irrachidun nga xam ne it ay salaam waxoon na ni عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Cheikh la wax ne ñoom seen ak njub mooy njub gi gën a mat ni ko Ahmad loolu waxee ci muqaddimatu taqdis day wax ne ñoom kat ñoo ñi nga xam ne lu ñu def rek ku ko def yaa ngi ci yoon wax ah lii de def nañ ko moom kon loolu laazim laazim loolu mooy ku ko def yaa ngi ci yoon wax dégg nga naa si nuuru loolu leer na amatul luñ ci yaakaar naa luñ ci dolli leneen li ma tax xam mooy xam naa ni tawassul fii du place am fii du place koy leerale waaye pour leeral tawassul gi way def nekkul ne day ñaan ke mi tawassul dee rek bëree bëri ci adiya salafiya foofu la juume ci tawassul nekkul ne day ñaan ca day ñaan ki mi tawassul loolu moom mat naa xam kii tawassul day jël ki mi tawassulee def ko wasila rek maanaam am moyen ahlu sunna wal jamaa yépp seen jumhur dëppoo na ji ne tawassul dagan na ci nit ay salaam ak ci darajam jamono ji muy dund ak jamono ji mu faatoo ak ci wàlli wi ak gaañu baax ñi tawassul di ñoom a gis ne dagan na boo dem ci téere borom xol ci ak ñaan ci seen barke ak barkeelu ci ñoom waaw loolu da nga gis al-imaamu Shaafi'i yi comme ni ko alxatib Bagdaad nettali ci taarixu Bagdaad يعني دبت خبر الإمام أبي حنيفة جفا توصل وكذلك برم خمفة جم يعني دمت يعني برم خمفة توصل المقدسي جسنا بقى تابو ميت بقى دالي مدم مدم جبا ميل أحمد بن حنبل وعي اليوم بقى نلير ما يجي توصل كوكو نيكو ني day ñaan ki mi tawassul lool mat na xam ki tawassul da gëm ne def ak dindi ci loxoy borom subhanahu wa ta'ala nek def ak amal ak ñàkkal mi ci yàlla ak amal ak ñàkkal buñ ko buñ ko wéeralee mi def rek jàppale loolu bajaat la te loolu Cheikh Islam saxal na Cheikh Islam nee na ku dul yàlla sax mën naa amal ak ñàkkal di di di wéeral ak di feebaral di amal amal ak di ñàkkal di pauvre di tekkiloo di def lépp di tasir ci monde bi daal loolu Cheikh Islam mi ngi wax ci at-Tuhfatul Iraqiyya Cheikh Cheikhul Wahabiyya loolu moom hujjatun alayhim loolu mat na xam mbokk yi kon yaakaar naa loolu mat naa xam kon suñ nooro yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne mooy tawassul la bu dee ci borom xoxim xam nag bëri na lool nga xam naa yaakaar na day bari boo demee ci المواهب اللدنية شهاب الدين القصر رحمه الله دخلنا مذاهب يعني أقوال المالكية الشافعية أقوال الحنفية ñu wax lu mel noonu xam ñëpp dañ ko saxal ci borom xol islami ñëpp dañ ko saxal xet tawassul ci l'islam ak barkel ci l'islam ak ci ko dañ yedd wa di salam sax jëm comme ñu saxé ci hadith amal xaaral ma déglu beneen audio bi macha allah fi nooro bu dee beneen laaj bi mooy eh, comme ni nga xam ne moom lañ gisee ci adiyaawu salafiya muy ñu wax ne ki nga xam ne day wat ci keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala léegi li ñu gis ko xam ne bu ne barki sëriñ diw lu mel ne barki sëriñ Tuuba wala barki sëriñ diw rek léegi mu ne da bokkaale ndax boo kooku kooku daa bokkaale loolu nag wérul moom loolu moom wérul xam naa loolu ñu koy wax nag mooy adiya u salafiya cheikhul islam ci jëmmam am na ci benn risala boo xam ne risala boobu mi ngi tudd jawaabun fil xalaf wala fil xalaf bil xayri laahi wa taala moom tontu boo xam ne du ko jëmale ci tontu am na risala boobu am na ci tabu majmu itra yoo xam ne tabu wàll nañ ko am yoo xam ne tabu ko tabu nañ ko mu nekk risala mustaqilla loolu Cheikh la jëmatu koy dàq moom jëmam waaye li ñu njëkk a jiital rek mooy eh, aslu bu waat ginnaaw bu ndax shirk loolu du shirk loolu ñëwaguñ ci waaye aslu bu waat eh, lan mooy waat waat mooy lan waat mooy lan waat mooy lii may wax nii day ki moo koy seedaloo mooy yàlla maanaam lii may wax nii ki maa ngi koy seedaloo borom bi tabaraka wa taala maa ngi koy seedaloo yàlla maa koy seedaloo yàlla loolu moy li ma ta euh wat dafa am lu wax al qasam ak al yamin al alxaj war gi nga xamne nak mo moo ci hadith nga xamne moy hadith ibn amr yir yur ajala wax ni inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum yàlla mi ngi leni tere ngeni wat ci seeni bay amar ñu xataab ne fa wallahi ma hayfu xaytu mantu samiatu rasulullahi salam bi ma gis ñu ko asalaam tere ko ma ndax jamono yoyu saxaaba yi njëkk njàngul islam di mat dañ daan waat ci seeni baay di giñ ci seeni baay am ci beneen xadis boo xam ne alimam ahmad netal ko ci musnadam amar bin xataab daal di wax ne benn bis dafa waxoon ne laa wa abi giñ naa ci sama baay it atan na ko ba fa innahu man xalafa bi cheyin duna allahi faqad ashrak képp ku képp ki guñ ci leneen lu dul yàlla kooku bokkaal na baatu ashrak gi nag moom la adiyaw salafi di jaxase nit war ci ni ñina yow bokalé nga subhaanallah te nit moom boo ko tumaale ak bokkaale mooy la al hukm al mutarattib ala dalik moy nga génne ko jéene nga génne ko ci diina ci des sama ko ay des na ci ñëwaat abdullah ibn amar radiallahu taala anhu dégg na ben way moy la wal kaaba gi naa ci kaaba gi ابن عمر نقول لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك kon nga gis na ñëw na ci beneen riwaaya boo xam ne yut aysan daa wax ne faqad kafar aw ashrak wala ibnu amar daa wax ne wax yut aysan daa wax faqad kafar aw ashrak riwaaya boobu tirmisi yi netal na ko am benn riwaaya boo xam ne abi hurayra moo ko ne yut aysan wax ne la taxlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andaat wala taxlifu illa billah nga gis ne kon ay asar dafa ñëw daal di daal di rot jóge ci yonent bi alayhi salaam ولا اي احاديث يو خاني داو دارو جوغي سي يونس عليه السلام مو ان تير صحابه ينيو وات تي سين باي موي تير صحابه ليغي ليغي دا لين ترني بول وات سي بول وات كين خدير يالا ليغي ليغي امني سي عباره يو خامني دا لين واخ نالين كيب كو وات سي كين خدير يالا كوكو اشراكا داف نالين واخ شرك بوكالنا ليك باب بوبو ناك نخ موي بوكالي كي ني خام موي ووتال يالا ندن ولا ديت mooy bokkaale mooy mooy bokkaale gi nga xam ne ni ko bu ko defee ni ko bu ko defee mooy bokkaale gi yàlla di wax ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha wala déet ndax mooy bokkaale gi nga xam ne moom la yonent salaam wax ne ana agna shuraka yi ani shirki xadis al qudsi ba yàlla day wax ne shirki ki ko ki ko def ndax gan bokkaale war ndax bokkaale ci ci ci ibaratu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam daa bëri ay façon te wuute te loolu cheikh lam leeral na ko ci ay bërëb yu bare bare bare soo ko leeral ci kanam facture mi ci mi ci place bi léegi bu ko defee nag loolu mooy li ci njëkk xadis yooyu mooy ci njëkk kon waat ci keneen ku dul yàlla moom loolu tere yi ci ñëw bari na lool mu def nag léegi ñaari point point bu njëkk mooy ndax li wolof yi di wax loolu waat la ko sharia waat la ko tudde wala déet barke diw maa ngi jiñ ci diw moom loolu wat la ko shari loolu moom daa xaram loolu du wax sax daa xaram naaj na ci atté bi waaye moom day bëgg moom moom bokk na ci yi tax ñu wax moom bokk na ci li tax yu atté wax maa ngi jiñ ci diw maam nit ki di wax ne man de maa ngi jiñ ci nanga waaw kon loolu moom kooku na leer na leer nañ ci problème bi kay mooy barke barke léegi ba ñu ñëw ci loolu dañu am lu ñu njëkk jiital mooy ñi nga xam ne dañu wax ne képp ku wàcc keneen ko di yàlla kooku bokkaale na loolu ay caaxaan la

وقد اتفق العلماء فيما نعلم من الصحابة والتابعين والأئمة على كراهة الحلف بغير الله تبارك وتعالى والنهي عنه وأن اليمين وأن اليمين لا تنعقد ولا يجب فيه كفارة إذا حلف إلا إنهم ولإلا أنهم اختلفوا فيما إذا حلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة nee na يلب lii بروخة وثني كصحابة borom xam ne wuute nañ la nga xam ne moom dëppoo na moom mooy sib gi sib Ibnu Taymiyya ne dañoo dëppoo ci sib waat ci keneen ko dul yàlla waat ci yàlla sax donte li nga wax dëgg koo sib ci waat di waat lu bëri donte ngay waat ci yàlla loolu lañ ko sib comme ni ko imaam Ibnu al-Jawzi di waxee wa kadalika ko euh, al-Hafiz Ibnu Rajab doon wax waat lu waat lu bëree bëri donte ki nga dëgg la sax loolu lañ ko sib ndax wóor waaye waat ci leneen lu dul yàlla sib ga moom lañ ko waat ci leneen lu dul yàlla dañ ko sib loolu dañ def ci surtout ci mazhab Malik dañ ko sib léegi nag eh, Cheikh Islam wax ne fi nga xam ne fi lañu wuute fi nga xam ne fi la fi la borom waxee wuute mooy nit ki nga xam ne day waat ci yonent bi salaam dañ caa wóote ba xam dañ ko si jëmam nee na waat ci yonent bi alayhi salaam dëppoo wuñ ci ne daa xaram dañ caa wute ñoom lañ dëppoo xëy mooy sib waat ci keneen ku dëgg yàlla bu ci yonent alayhi salaam bokkut متكن سوم من أصحاب الأئمة من قال يكره الحلف ولا يكره الحلف بغير الله تنزيها ولا ولا يحرم وقطع الباغون بأنه حرام وهذا هو الصواب من أمنك أي ما يخدم الدنيا وحني ما نم سبجين خدم سبجين خدم مم لم سب وات كأنه قد يلا دسيب حرام الله دام ينسب جسيب تنزيه له ما يسب جو خدم دسيب دسيب ترى nga xam desu ko haramal du sib ga sib gi sib la goo xam ne tanjih la ak sibug ihtiyat dafa am lu ñu wax sib go xam ne léegi ihtiyatan léegi lañu ko wax tanjihan am sib go xam ngir tera ko carrément la lolu lolu da nga gis ne Cheikh lamnea wat ci kenen ku dul yàlla sib giñ ko sib da am ñene sib gi sibuk ñàkk def la maanaam sibu sib sib la goo xam ne sib gi dañoo gis ne la gën mooy nga bàyyi ko am ñu ne sib la goo xam ne sibuk tere la carrément Cheikh Lam na moom bi mu moom Ibnu Taymiyya ci moom moom bi mu mooy boobu waaye kon am na bu wute mawduu xilaafin loolu mooy lu wér mu ndax sirke lam loolu moom ñi koy wax dañoo xamul fi ñu taxaw ndax na euh, yonent bi alayhi salaam maanaam sirke gii muy wax du sirke gi nga xam ne day jëm pas-pasu nit mooy sirki gi ñuy wax mooy sirki gi yàq day yàq pasu nit ki du sirku woowu day def du sirku woowu nekkul sirku muy génn ci lislaam nekkul loo xam nit ki bu gasee génn ci lislaam nekkul loo xam nit ki bu gasee bokkaal na yàlla déedéet daa tàbbi ci tere goo xam ne dañ ko tuddee sirk dañ ko tuddee sirk ndax tere yi nga xam ne moom la yàlla di tere li am na ci wax xam ne dañ ko tuddee sirk moo tax kon loolu mooy li njëkk motax Cheikh Islam bu agge day wax ne mom ibn taymiyyah ci jëmum day wax ne fa man xalafa bi ghayri allah faqad jaala lillah niddan fa in fa in faala hadha mu'taqidan li ibadatihi fa huwa kafir wa in lam yakun mu'taqidan fa huwa mushrikun fi al duna alshirki al akbar alladi yanqulu an almilla kama qalu shirkun duna shirk wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alriyau وفي ذلك أنزل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ابن تيمية جيم من هنا كي نحن لا واتي كي نكون ديال كوكو من دونيك كين دو كين كين دو كأتا كي نكون بكاري ما جين جيت لما جيفر نجاك يدمن بفك كي فصل نعدي جام كوك أنا بوني بارك سيرين توبا ما بارك سكار كي جسالي دكتور ليرال بوني جينيا سيرين توبا wala maa ngi wàcc Sëriñ Tuubaa Cheikh la Ibnu Taymiya ci yemam nee na nit ki ki wax loolu li feeg fasut ne man day damay jaamu Sëriñ Tuubaa kooku moom kooku kooku kooku kooku nekkul ab kaafir deesu ko tuumaal ab kufur deesu ko tuumaal dara waaye nag bu dee ci wax moom dañ naan kooku ashraka fil qawl mooy bu dee ci wax bokkaale na yàlla ci wax bokkaale wut yàlla ci pas-pas defut lu koy génne ci islam defut koy àggale ci waaye nag kooku bokka bokkaale na yàlla ci wax mu daan wax nag ndax bokkaal daa nekk ñaar daa am bokkaale goo xam ne nit ki du koy def eh, bokkaale goo xam ne bi maanaam maasiya maam mooy ak mooy dong la comme ni nit defee ay di def ay bakkaar waaw comme ni kii ki di tàbbee ci wax lu ko leer di demee noonu nga def ay bakkaar dafa am mooy yàlla yoo xam ne léeg-léeg dañ koy tuddee dañ koy tuddee shirk te loolu borom xam-xam yi koy tasalo yëpp ku demee as-Samarqandi ca Tanbihul Ghafilin ñoom ci borom xam yi eh, dañuy tasalo ci xadis boo xam ne bi aslam daa wax ne maam nikki ki bu ngisalee rek kooku sirk la bu fekkoon ne sirk gi ñëw ci xadis bii faqad ashraka da nga koy dégg ci ne kooku moom da nga koy sirk moom comme comme ni ko gars yi def yaa ne dañ koy def masala bu rëy rëy rëy jàpp ci di ko taxé si nit ki ba ànd taqal ko tuuma tab deew ko ci bu loolu la kon képp ko ngisal rek jàpp na yoo génn nga ci lislaam kon loolu daa mat a xam kon sirk dafa am loo xam ne charia dafay tuddee sirk te loolu du sirk gi ñu xam shirk gi nga xam ak shirkul asli moom ñépp dëppoo nañ ci ne day génn ki ci lislaam waaye nag dafa am leneen lu loo xam ne du génn ki ci lislaam sax euh, mën naa bañ yàq jëfam lu mel ni ngi tal shirk xam ne du yàq sa jëf yi ñu def moom waaye nag tere gi ko tere tax na ñu tuddee ko shirk loolu Ibnu Taymiyya yoo xam ne shirkun duuna shirk shirkun duuna shirk euh, loolu Cheikh Islam mi ngi wax ci euh, risaalaam bu ndaw boobu kon loolu mooy li ma xam kon xoqal asharka gi nekk ci a yi ñëw ci ahadis yëpp loolu tekki wu ñu nit ki daa bokkaale yàlla déedéet daa def lu ñu sib daa def lu ñu tere képp ko def daa def loo xam ne dañ ko sib te sib gi sax wute nañ ci ne ndax sibuk araamal la wala sibuk tere la wala sibuk tanzih la mooy sib boo xam ne def bàyyi koo gën a wóor loolu dañ cee wute loolu mawdu al xilaafin bayna bayna al ulama Euh, li may wax nag boo gisee ma euh, focalisé wu ci Ibnu Taymiya mooy ñi koy ñi koy radd dama leen ñi koy weddi dama leen bëgg a ilzam dama leen bëgg a ilzam seen wax wax ne ki ko daa bokkaal yàlla kooku ñoom Cheikh Islam radd na leen loolu saxut te it ki koy def bu fekkee ni mm, da koo def nii rek waaye fasul mukk ne kii may giñ ki may giñ ki moom ni dama koy jaamu kooku moom ab atte dalul ci kawam atte bi dalul ci kawam kay mooy sib gi te sib gi ñëw wute kon loolu euh, mbokk yi mat na xam euh, kon loolu yaakaar naa mooy at loolu mooy kii kon euh, rot na ci ahadis yoo xam ne day tere giñ ki keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala waaye ahadis yooyu yi nga xam ne dafa rot nga xam ne yi daatan dañuy wax ne foo def bokkaale nga déggin yi nga xam ne moom la ci adi ayaa salafi am du déggin bu baax ndax ibnu taymiya ci jëmam atam ijmaatam yooyu muy toxal moom euh, toxal na ci ne saxaaba yeeg taabiin yëpp dëppoo nañ ci ne lañu li nga taabiin yeeg ay imma ñoom la ñu dëppoo mooy sib ci giñ keneen ku dul yàlla te sib gi sax ibnu taymiya ci boppam nee daa am daa am wuuteen daal ndax sib la goo xam ne sibuk tanzih la wala sibuk taxrim la euh, loolu ak wuute la kon loolu mat naa xam mu def nag léegi nit ki bu fekkee dafa wax ni barke barke sëriñ diw ndax loolu ak waat la loolu li gën a lënk baat boobu du wàcc sharia xanaa ki fas ci xolam ne fa was ci xolam di waat waaye baat boobu moom du wàcc sharia baat boobu du ab waat ci sharia ci shariatul islamiyya ndax li ëpp ci li nga xam ne ci shariatul islamiyya baat yi nga xam ne baat yi nga xam ne moo rat ci ahadis yi boo xoolee du génn baat yi al yaani al al iqsam sharia baat yi nga xam ne yàlla da koy jëfandikoo yor ci sharia tañ tañ koy waate du génn yetti baat yi lu mel ni al yamin wala wala wala al al al kii wala al xalf wala wala al iqsam wala bu neex ngeen al qasam laa uqsimu bi yowm alqiyama maa ngi giñ wala wala uqsimu bi nafsi lawama wa aqsamu billahi jahda aymanihim beneen bi ci tegee mooy kon boobu maa ngi giñ باطب الحلف إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك beneen bi teg mooy baatub al yamin waaye barke loolu maanaam du ak giñ ci sharia baat bi rek moom du ak giñ ci sharia ndax nit ki bu fekkee dafa wax ne barke nangam loolu pas-pas ba mu ci pas loolu mooy loolu moo koy def ak ngiñ benn mu pas ca ne barke gii mu wax li ma ci jublu nag mooy seedeloo kii ma tudd turam ne li may wax dëgg la moom laa koy seedeloo seedeloo ma ko yàlla moom laa koy seedeloo moom ci bu fekkee façon la ci am moom boobaa barke ga day daan nekk ak ngiñ waaye mu jarat mbaat bi moom loolu du ngiñ ci sharia moom su ko moo tax siwut mukk ñu ne Ibnu Taymiya ba muy Ibnu Taymiya am na ci risaalam bi ci ba muy lim baat yi nga xam ne mooy baati ngiñ yi da nga gis ne baat yu mel noonu boo boolewu ko ci waaw baari mel noonu boolewu ko ci daa nekk baar yi baar yi nga xam ne moo gën a siiw te sax rotu sharia waaye siiw na siiw na mooy lu mel ni waxayaati waxayaatik la amruk turbata fulanin turbati abi ah yi demee noonu wa xurmatika inda allah wa xaqil kaaba baar yooyu waaye nag barke ndax baatu barke ci jëm luxal arabiya la te baatu barke li ñu firi mooy alxayr wa fuurul xayr comme ni ko آه، الإمام محمد بن تارك معاشر رحمه الله وخيتي التحية ويكي بمشرح في تفسير تبارك الذي بات بات بات بركة لم في رمي وفور الخير وخزانة فيه والفضل لكنك نيت بفيك دني بركة نعم بات بود أب جنج شريعة خميس يوم بنت أب جنج شريعة ولا لير بفيك نك دا عندك نيت كده كأب بسنة لم جبلي تبارك جوج ماي كم كم كم وحني مملاي moom lay teedeloo boobaa nag loolu mën na ko yóbbu ci ngiñ mais aslu baat moom nekkutoon ak ngiñ ci sharia bokkut ci baat yi nga xam ne daa rot sharia ci baat yi mii na ci giñi waaye bokkut ci baat yi nga xam ne daa rot sharia kon loolu moom yaakaar naa loolu mooy tontu bi euh, loolu mooy tontu bi la gën daal mooy maytu ko ko moom moytu ko moo ci gën hmm, lañu la nga xam ne moom la imaam maytu ko waaye nag nit ku ko def bi caagi ne daa bokkaale wala daa weddi yàlla wala daa indi doole déedéet bala sax ci borom xam ne am na nañu wax ne loolu karaxatu tanzih la sib gi sibuk tanzih la loolu mooy loolu mooy li nga xam ne moo rot ci ahadis yi eh, xasaba ilmina a ilmu indina fasara xam ak li ci des mu nekk sept minutes waaye gis ba lépp waxut son ba baaxut gas kay moo tax waaye li ma doon wax xaaral mbaam wat fii mooy eh, ñi nga xam ne dañuy wax ne ki nga xam ne xëy mm, na ñi nga xam ne buñ nekkee ci jamono dangereux wala ñu nekk ci jamono oto léegi-léegi dañuy jaaxle di am ku ñuy woo léegi-léegi ñu léegi addi yaa usal fii dañoo xam ne loolu ko def yaa ngi bokkaale loolu ay caaxaan la loolu daa am loolu ñàkk xam la ndax loolu dafa am dalil bu sax ci sax ci sunna si ay siraam bari na loolu waaye nañ tudd benn doyloo ko ak yenn ci borom xam-xam ba ci njëkk mooy xadis boobu nga xam ne albazar nag la ko ci ca ca kashful astar ca ca albihaaru zaaxira téere boobu nga xam ne musnadu bazar وكذلك تبراني نتا نكو اك ني نيو نيوم نيت حديث حديث عبد الله بن عباس حديث ابن مسعود اك اك حديث بلال حديث بلال اك حديث عبد ابن مسعود نياري ويرو حديث عبد الله بن عباس نك هيثمي ويرل نكو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وحنا رجاله ثقات حديث بقول لي واخ يدعي السلام داي واخني كين جين بو نيك الله خموتي فم جيم دادي تيت ولا موري ولا مسانكو te àll bi xamul fu mu jëm wala mu yoroon ay daaba daaba ya daal di koy rëcc yu ñëw ci beneen lagu na xettali ko ci ay jaamu yàlla yoo xam ne gisu leen ndax yàlla am na ay jaamu yàlla na wax yaa ibadallahi a'inuni yaa ibadallahi aghithuni xadis boobu bu dee ci riwaay riwaay ibn Abbas bi xadis mi wéral na ko ci majmu'i zawaid wa manbu'il fawaid yaa gis ne kon xadis boobu nga gis ne yutub alayhi salaam maarif saxal foofu nit kon bu bu nekkee ci ci yéen nit yi am na tiis yu muy nekk dañ xette waxut na ñaan yàlla yaa na wax yaa ibadallah a'inuuni am ci riwaay boo xam ne yaa ibadallahi aghithuuni wala am ci riwaay boo xam ne wax ne yaa ibadallahi dulluuni tariq wa ala kulli xaalin riwaay ibn abbas moom wér na ñaari riwaay bu dee ci wàllu sanad wérul waaye nag maana bi daal wér ndax bii de bii de bii day daal bii du koy mën a témoigner ndax xadis léegi-léegi sanad mën naa am problème waaye maanaa ba ci moom mën naa am yu koy témoigné ba waaye yartaqi ila martabatil xusn comme ni ko xufaadul xadis di wax yonent bi alayhi salaam wax ne kenn ci bu nekk ci àll daal tiit wala mu am lu mu war a jaaxle na wax yaa inna ko yéen jaami yàlla yi naam boobaa du nekk ay jaami yàlla yi gis ko ci ay jaami yàlla yoo xam ne xëy leen dimbali leen mu war a xettal leen ma ngay gis ne kon Yunus alayhi salaam moo njëkk a jàngale loolu ngir dëggal eh, xadis boobu borom xam-xam eh, gëm gëmoon moo taxoon alimam Ahmad ibn Hanbal boo demee ci masailu alimam Ahmad ibn Hanbal bi nga xam ne xam nga alimam Ahmad ibn Hanbal ay masailam dafa am ñaar dafa am boo xam ne doomam di Salih moo koy nettali am beneen boo xam ne doomam di Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal moo koy nettali مصايل احمد محمد ابو عبد الله انا ابو اجا دينا احمد محمد جيما جيف ون حديث بابا بين بس احمد بن حنبل بين بس اجي ون مكه بن اجي انا دار جاتي يوني يوني يوني مجارون نك خينا دفا رير خبودي فم جيم ما عندك مير خينا ولا دوها مستجار بن دي ابو جاري خمني تخي امتو تخي امتو في فن لا ci la jëfandikoo xadis boobu yaa ibaada lay zulluuni tariq ci la daal di gindiku xam yoon wi yoonu màkk wi naw wi demee ci almajmuu wala ci yeneen téere mi day leeral ci ne am na ci ay sëriñam yoo xam ne naw ci jëm am na ci sëriñam yu ko borom xam yi nga xam ne dañoo bokkoon ñu ko jàngal ñoo xam ne xadis bu mel lu mel noonu daroon na rek ñu lay jëfe boobu kon loolu ay caaxaan la kon loolu ay caaxaan la beneen mooy Cheikh Lam Taymiya <laughs> boo demee ci at-Tuhfatul Iraqiyya moom saxal na ko Euh, kon loolu mooy li ma ta xam kon loolu moom wax nit nit lu koy def day bokkaale lu lay caaxaan c'est daa am lu ma ta xam euh, nit li nga xam ne yàlla da koo santaan ñi defal ko ko du caagi nit ki fu mu ko defalee keneen rek kooku day daal di bokkaale rëcc nit ki bala moo nekk bokkaale faaw la koy defal keneen bare ànd ak pas-pasu rububiya kam ko defal moo tax nga gis spectacle bi gën a rëy ci jaamu yàlla yi muy sujjóot nga xam ne mooy mooy spectacle bi gën a rëy ci jaamu yàlla yi bokk na ci jaamu yàlla nga xam ne ñoo gën a feeñal ak xuduu ak ak zul lillahi tabaraka wa nga yàlla sax ci jëmmam day saxal ci alquran di leeral ci ne jëmmi sujjóot googu sax du jaagi ne boo ko defee day keneen ku di yàlla da ngaa bokkaati far waaw ndax sujjóot ànd ak ni mu toll gis nga yàlla na nga gis yàlla di ko digal di defal keneen di ma ngay digle ma ngay digle ay mindeef ñu koy defal leen moroom mindeef wa id qulna lil malaika lil malaikati isjudu boo demaatee ci kasaalika ci sur yusuf wa waxar waxaru lahu sujjada waxaru lahu sujjada nga xam ne kon dañu mbokk yi dañu dañu sujjutal yusuf boo ñëwee xadis boobu nga xam ni ibn xibaar netal na ko yusuf alayhi salaam maaz bu ñëwee dem ñu fekk asaan taxaw mu daal di sëgg suyu sujjutal ko yusuf alayhi salaam wax ko da nga bokkaal da koo tax fi àll na ko li nga def njuumte la waaye waxuñ ndax xam na ni Muaz fasul mukk rububiyatu masjudi lahu fasul mukk ni alayhi salaam daa am rububiya gu nekk ci moom fasul mukk ni alayhi salaam daa am uluhiya gu tax nga ko si déedéet pas-pas boobu nag bu ànd ak ji jëf ji loolu mooy loolu mooy tax nit ki nekk bokk bokkaalikat mooy tax nit ki génn ci lislaam moom waaye pas-pas boobu li fekk amu ci nit ki rek nit ki boo ko tëddee mushrik tàbbi nga ca wax yi alayhi salaam tëkk gëm tëkk woon ab jullit di jàkkoor ab jullitam di ko takfir beneen mooy Cheikh Islam moom daa saxal ne ab doomi aadama ci jëmmam mën na taksir ci doomi aadama Ibnu Taymiya <laughs> Ibnu Taymiya da koo saxal moom ci jëmmam Ibnu Taymiya jëmmam daa saxal ne maanaam nit ki waxumal euh, dara nit ak nit na yàlla mën na koo may muy taksir ci mendu bi muy def jeexe ci mond bi di wéral di maanaam di wéral di feebaral di alak di ñàkkal di taasir ci monde bi àgg ba ci di maye doom sax far waaw maanaam day àgg di taasir ci monde bi ci anam goo xam ne day yaatu yaatu goo xam ne da mën naa àgg sax ba ci eh, yaani maanaam di taasir ba ci di di <laughs> xettalee ak di may do maanaam yàlla yàlla da koy may taasir ci fil kawniyaat muy taasir ci mond bi di def jeexit ci mond bi loolu unité mi jëm saxal na ko nga xam kon boobaa nit ki xettali moom ka muy xettali ko <laughs> kooku eh, yaani daa am tasiir bu yàlla def ci moom ba tax ay yaakaar ci ba di xettali ko ci moom loolu Cheikh Islam ci mi ngi koy saxal boo demee ci téere boobu nga xam ne benn risaal la boo xam ne da ko bind mooy qaida qaida boo xam ne fi fi bayaani al mu'jizat wal karamat qaidatun fi al mu'jizat wal karamat ko ci biir majmu'i fatawa tey bu àggee da nga ko ca fekk bu àggee ci page <laughs> يعني دا فيك ايميتي دي واخ لو ملني لي ورال نيت ني دي خيتال كو ني ني موي ساخال غيم ساخال موم ني دومي ادم دي امنا سي ньо خامني ساخ يو يالا دي ماي تاثير غوي وار ا تاثير دي يالا دي ماي سي ميندي دال ني ني خيتال كي دي فيف ها دينا وار بو اجيت من ما سراي ايميتي ني من لو كي خيتال ليك agir men آه، كما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار وإلى تأثير وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاء وإهلاك وإغناء وإفقار ak ci yeneen di bërëb yoo xam ne yu ak di bërëb yu dul xam ne yàlla koy may pouvoir mën a xettalee ba tax nit ñi mën a xeetal ko ci moom waaye tax te lam dañ doon leeral loolu rek loolu mooy loolu mooy li ma taxam suñu nuuru ala ma déglu beneen audio bi laaj mujj bi mooy euh, sujjóot yi nga xam ne moom la mooy di def nga xam ne euh, yaani am na ngay nuyu nit ngir jublu koo màggal wala jublu ko wek ñenn ñi di ko def ngir jublu màggal nit ki ñenn ñi di ko def ngir tàmm gi nga tàmm eh, ko def ngir jàpp ne ku ko defut doo loolu day tekki ak mbëri gu manqué ala kulli xaal ñetti catégorie moo ci am am na ci ñoo xam ne su jot gi ñuy def buñ la yëg nuyoo dañ ciy fas ak màggal ak weg la ñoom ñooy assaabiquuna fi dalik Eh, mooy ñëw ji gën a kawe mooy dañ koy def ngir màggal la ak waay la jox la sa waay wormaal la eh, wormaal la ak eh, te loolu mooy bi gën a kawe beneen mooy ñi beneen catégorie mooy ñi ne dañ koy def ngir tàmm gi ñu ko tàmm ñoo xam ne dañoo tàmm sujjóot ba nga xam ne buñ doon tijj buñ doon nuyu sax koo xam ne aadam du sujjóot dañ koy sujjóotal benn ci man mii def naa ko fii tàmm naa ko ba nga xam ne nuyu naa nit di ko sujootal mu fekk sama loxo bi fii ci fii ma nekk nii tarkat la euh, ma xam ne daal ah daanaka dox bu fetteer rek daanaka waxaawee bu fetteer rek kon loolu am ñoo xam dañ koo am ñoo xam ne dañoo gis ne def gi ñu koy def mooy teg mooy symbole mu catégorie catégorie boobu moom des ko war a leeral tey nag seen i gis-gis ala doon sa loolu laaj bi nag koy des koy leeral ala kulli xaalis catégorie ñaari catégorie yi njëkk yële mooy ñi nga xam ne dañ koy def ngir màggal te mooy bi gën a bëri bi gën euh, mooy bi gën a bi mooy gën a fes ak ñi nga xam ne dañ koy def ngir tàmb gi ñu ko tàmb donte loolu mën naa bañ a génn ak màggal ndax asula ba màggal la woon màggal nit ci maal ko ñu ne bokkaal la ñeneen ak bokk ñu naan bokkaal la ñooñu dañuy caaxaan amul ba amul ci dalil loolu amutub dalil ndax loolu xam nga ki taxaw nga nga nga ko mu ne la yow da bokkaale loolu loolu mu jara daawa képp la te bu sayr dana wax ne wa daawi in lam tuqimu alayha bayinatin abnaauha adiyaau loolu ay woote woo képp la waaye sujjóot la moo tax ñu naan sujjóot ñoom dañoo jàpp ni loolu sujjóot la ci diine te loolu njooxum njuumtewu rëy rëy la njooxum gu rëy rëy dañoo jàpp ne loolu sujjóot la ci diine te loolu du sujjóot du léegi de loolu day baax ñi xam lan mooy sujjoot ci sharia sujjoot mooy lan sharia baatu sujjoot lim daan firi ci luxal arabiya est-ce que xam nga mooy lan waaye sax bala ñoo ñëw ci loolu dañuy ñëkk ñëw ci e, sujjoot mooy lan mooy lan sharia waaw sujjoot mooy lan sharia sujjoot li muy firi ci luxal arabiya boo demee ci xawaamisul luxa wala maadin yi sujjoot li muy firi ci luxal arabiya mooy الظل والانخضاع والتعظيم موي طرح نتك طرح نتك التواضع أجمدل كل اللي في الغربية تقول بقى أنك أصل بك شيء موي كسور الرحمن أي خلينا نجي في عالدوح الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان يعني بدو يجيب دي يسجد ndax bu yalla waxé né bi di wéki dañuy sujoon mom loolu lamay tekki moy <laughs> dañuy def luñu xam dé rek sai ga sujud istilah shar'i la da am ma'anan lugawi am istilah shar'i bu dee maana su maana lugawi bi nag boobu mooy bi yaatu nga xam ne mooy mag mooy mooy mooy toroxlu ak màggal ak wekk nit ko nit koo wekk rek ci lugal arabiya rek kooku suy sujud nga ko suy sujudal nga ko donte nag da nga koo wekk nii rek donte mosoo koo xam sax kooku sujudal nga ko nit koo màggal sujudal nga ko nit koo xam ne yaa ngi koy toroxlu sujudal nga ko ndax loolu mooy sujud aslu sujud ci lugal arabiya sujud loolu lay firi ci lugal arabiya aslu bi mooy ak taasim loolu daan firi ci luga arabiya sujud day ñëw day ñëw bi maana ak taxiya wa xarru lahu sujjada mooy am nuyoo léegi nag sharia bu fekkee ab baat ci lugal arabiya sharia bu ñëwee benn day day bàyyi baat ba ci aslu ba wala mu wut istilaax boppam sharia bi mu ñëwee moom la mu tuddee sujud lan la waaw sharia bi mu ñëwee moom la mu tuddee sujud lan la manam lamu tuddé ci tey lan la da nga gis ne sharia bi mu ñëwee maanaa bi nga xamné mom la lugal arabiya di tekké ci sujjóot mom sharia da wute mom sharia lam lam gis ne mom ma mooy sujjóot ci bir te wax yàlla rek lañ ko defal moy as sujud moy moy al inhina bi dhahr maa sabati bi sabati ahda bi sabati ahda moy nga daal di lunk sujjóote juróom-ñaari cër sharia lolu def mo ci sujjóot sharia manam sharia lolu la jappé ci sujjóot te loolu xadis boobu xadis yitu ay salaam ci xadis boobu nga xam ne sax na yi ak wax ne umirtu an asjuda ala sab'ati a'ba yàlla damaa digal ma sujjóot ci juróom-ñaari cër juróom-ñaari cër yooyu mooy ñaari yànq yaari yaari yànq wala wala wala wala wala waaw yaari yànq ak yaari kii yaari dëggu ak yaari ak yaari woom ak akub jë am ñu ne mooy al bakkan bakkan fuqaha yi waaye loolu seen wax ju saad la ndax ku ne xam ne ak jëmoom day duggaal ci xar kanam euh, comme ni ko xamee ci kutubu fuqaha léegi sharia lim def sujud sujud yàlla bu waxee su sujud buñ ci waxee ci sharia diine bu ne bu waxee sujud buñ waxee sujud ci diine lañu ci jublu mooy nit ki jël juróom-ñaari cëram yëpp rëpp ko nit bu julli ni muy def noonu muy def ginnaaw bu jugee ci rukkoo jugi ci taxaw ci rukoom noonu muy def loolu la sariya di tuddee sujjoot loolu la sariya wax ne bu ko defal keneen loolu la sariya di tuddee sujjoot waaw sariya di la tuddee loolu la sariya xaraamal nga defal ko keneen te nekk seku ne boo ko defalee keneen da ngaa génn ci lislaam bu fekk bala nga génn ci lislaam faaw ab xaayida day am ab pas-pas bu war a nekk ci yow فلا بد أن تعتقد أن أن للمسجود ربوبية وألوهية مستقلة كوب أبقى عند boo دابر خب bara xam loolu moom yoon la woo xam ne aday أي salafiyé dañ cey def eh, ay eh, taxabutaat yu day war moo tax xuloo yu bëri kon li ma taxam mooy sujjóot sharia li ñu jàpp li ñuy considéré sujjóot daan ne lii yàlla yàllaa ko moom bu ko defal keneen koo ko defal rek yow dañ la ñaari ñi xoolee la mushrik bu fekkee am da nga am pas-pas ñu ne kooku def ko war a jàmm wala ñu xoolee la aasin aji moy bu fekkee amoo pas-pas boobu waaye da nga ko def rek jot bii la wax lii leneen leneen lu mu doon nag su sharia waxu ko dana ci ñëw kon su sharia lii la lii la xaraamal lii la yàlla di wax ne laa tasjudu li shamsi wala al qamar wasjudu lillahi alladi xalaqahun in kuntum iyahu taabudun loolu yàlla di wax lii la Yuda alayhi salaam tere woon Muaaz ibn Jabal ba mu demee fële ci Sham ci xadis boobu nga xam ne eh, Ibn Abi Haatim ibn Razi nettal ko ci tafsiram kadalika eh, Ibn Hibbaan na ko eh, ak Ibn Maaja Yuda alayhi salaam Muaaz ibn Jabal ba mu demee Sham fekk ñi sujjóotal seen xërëm ya mu ñëw fekk Yuda alayhi salaam rek mu yaakaar ne comme que nasaraan yaa koy def comme que nasaraan yaa ngi koy def xaaral ñu mu ñëw fekk Yuda cër yëpp it asam daal ko daan daan na ko déedéet bàyyi li ngay def daal di ko caxte aal da ko juum la dana ko loolu njuumte la waxu ko dangaa mooy de na ni eh, wax ko dangaa mooy de na ni Muaaz fasul fasul mukk ne yàlla fasul mukk ak rububiya ci yonent asalaam mukk ak uluhiya ci yonent asalaam bu tax mu sujudal ko da koy def rek taaziman moo tax yàlla salaam wax ko ne ko ashrakta bokkaale nga direct kon loolu dalil la buy tekki ne ki ko def mu jar def ko rek kooku sax même ci même bi sharia xaraamal nga def ak keneen sax boo ko defee keneen kooku tekki dana nga bokkaale mu jar def ki rek du ko tere ndax al ibra nekkul bil xarakaat wa suwar wa innama al ibra bil qara'in al aqliya loolu mat daa mat a xam kon loolu mooy sujud sharia dégg nga loolu mat naa xam si si ñooro loolu mooy sujud sharia sharia lu lay tuddee sujud léegi nag li nga xam léegi nag leneen lu lu bokkut ak loolu rek boo ko tuddee sujjóot doonte yow da nga ko benn day day doon luxa luxatan wala mu nekk istilaax boo xam ne sa istilaax la ndax dafa benn xaarida bu am solo boo xam ne faaw ñu xam ko mooy laa la mushaaxata fi istilaax xaarida bu nga xam la mooy nit ki bu neexee mu la mu nekk ak li mu def mu tànnal ko ab istilaax wala li mu créé wala li muy wax mu tànnal ko istilaax استلاح مرخ ذرق احنا ذرق بريمك بريمك قواعد التفاوض دي وحني دفنا ني ارتيكل 5 لي دور ارتيكل 10 لي تولول سو جومت دما كو تيمون ني بيمي اند اي ارتي ارتيكل كي ارتيكل 10 ما غي وحني الاستلاح للشيء لولو امول بونت بو خامني دنج كوي تانك ريت كوم نيه موتاخ بو ديما ابي ابي معاذ عبد الله بوفم لولو حكين لك نيوم boo demee ci téeréem boobu di mad al madxal ila ilmi al xadis maa ngi koy leeral foofu la mushahat fi listilaax mooy nit ki bu fekkee daa bëgg mbir mu nekk maanaam ki ngay ki ngay sujjóota wala ki nga wala nga di ko màggal warmaal gi nga koy warmaal bu la neexee nga tuddee ko sujjóot yow loolu istilaax la exemple tey sujjóot bi murid yi def bu ñu ko doon xamle dañ naan ak sujjóot fi luga nangam lay firi ak sujjóot fi sharia nangam lay firi ak sujjóot bi indal muridiyin فهذا اصطلاح يعني يراد به معنى كذا وكذا لولا جاي خبرنا مرة ثانية مرة جون بقولك أن ياخونك من جدك جدك شو مني ناك ده شو لا إيش أعمل كل على كل حال سجود الشريعة سجود بمرين يلف لولا ما قال لا أصلي بما يتقبيل ولا تعديل بفك سجود نوي كجل خبي صافن تدخيل على السلام ده وقت أحد من ياري جلت ياري جلت bu ñu dajee daal di saakonte li feek seen yaari loxo maa ngi téewante aw yiw yi ay tiyaaba day rot ci seen kaw comme ni xobi garab di rotee di jóge ci ak garab di daal ci suuf léegi loolu ak saafonte la ak saafonte it asam du ko loolu ahadis yu bare ba daa ñëw ci saafonte saafonte nag tënkuñ ko ci joxe loxo dong xatta ba ci muaanaqa sax doqonte sax saafante ci saafante la bokk mooy doqonte lu ñuy wax akolaat loolu yëpp ci xeetu saafante la bokk wala foon nit ki ci jëf ngir jublu koo màggal loolu lépp ndax ba Siddiq radiyallahu taala anhu arda bi mu ñëwee fekk bi asalaam faatu ba mu gis na da koo mu daal di koy foon daal di koy tagg bu dee ci yenn riwaay yi kon muri ji li def mooy ñaari julli ji daje ngir jëfe sunna ci tibbi alayhi salaam googu ci li mu wax ci da ak yool yi nek ak ak yu ci atam digle kenn ki jël loxum daal di koy dëgëral ci loxo ka ca des ngir doli ngir ngir doli ak magal ak worma waji ji daal di sëggal gër jël jëbi tek ko ci kaw tem xal ka ca des ngir magal ko ba tey ji do ko juróom-ñaari cëram ngi sharia ci rek dedet loolu nak tuddu sujjóot ci luxal arabiya loolu lam tuddu ci luxal arabiya mo tuddu at tahiyya moy li mouride def loolu taxiya la tuddoon wala musafaha ولا تقديم ولا تعديم لين جينا معنا يبدا جينا جينا مورينيو دا كوي استراحه نوتال كوي استلاح موي ليغا خاندي معنا يبدا تي دجي موي نيت كي خاندي داغا دجي موم جيل كي بي دا جيل جيبي دا كوي تك سكي معنا يو ييب ينا دجي دجي ني دا كوي استلاح الجيل سجود دا كوي اطلاق سي كوم ndax buñ ñe sujud sujud bobu dañ ci jiblu sujud gi sharia gi sayadi le direct amalam kon يعني بين الأمرين بون شاسع وفرق كبير ñaari mbir dafa am différence sharia lam sujud bi nga xam ne moom la wax ne ku ko defal nit da ngaa bokkaale mooy as sujudu bi sab'ati aqdaha mooy sujudal sa juróom-ñaari cër yi nga xam ne moom la ñu asala wax ci xadis ba umirtu an asjuda ala sab'ati a'da yooyu la wax te yooyu sax sharia nekkul ne boo ko defee mu te automatiquement rek kooku da ngaa bokkaale déet dañuy maanaam dañuy taxawal iqaamatul xajja ci sa kaw maanaam ndax boobaa day am ñaari tax tafsil mooy ndax da def ngir da ngir rubu bi ngir pas ngir pas ndax ban pas-pas moo tax ba def ko ndax rubu bi ya gim pas ak uluhiyya gim pas ci waay yi moo tax ma def ko boobaa moom laa sàkk ni shirk la kooku bokkaal gën bu fekkee ne fasul loolu da koy def taajiman kooku daa mooy yàlla rek daa def bakkaar rek daa def jubde rek des koy jubbanti des koy jubbanti xant bu dul bu dul boobu nag beneen bu mu mën doon nag loolu kenn amul fenn moo xam bi murid yi def amul fenn fu sharia xaramale kon loolu ay caaxaan la loolu ay caaxaan la wax la yoo xam ne amut ab dalil moo tax daa nekk boo koy naqaas da nga koy naqaas scientifiquement rek eh, rotal tuuti dalil munaqasha ko yooyu ay daawi ndax bu fekke nit di sujud ni nga ne ko sujud sujud kenn ko defal kenn ko defal kenn ku dul yàlla gën sujud lañu defé kenn ku dul yàlla moy sujud sujud shar'i sujud sujjóot sujud bi islah kep li lépp islah la manam ak nuyo la aku saafante aku màggal aku wormaal worma go xamne man mako tudé sujud to lolu la mushahata fi islah al qa'ida taqul la mushahata fi islah lolu mom daa ma ta xam daal على كل حال يا كان لول موي لا وهذا القدر كفاية صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، من يكون نيجي كفدت نجني وات أقوم قدان يكون لإرزا مرة لما تخمنك لما تيات موي آه، سجوت أصلبا مين يكون فون لخو lolu mat na xam sujjóot gi murid yi def atlum ni ñu nekk fo lox lolu mo demé ci boy lire mbindum suñ shuaib alayhi rahmatu rabbil alamin tatawala am la ci téere bi dama dul xam ba xam qurratul ayn dama xam ba xam ci yéen téré yi mo yorom ay jëmono man ngi saxal ne sujjóot aslu ba moy nekon taqbil am na ci bërëb yo xamne dañ koy tere sax am na ci jamono yoo xam ne buñ nekk ci jamonoy cancer jamonoy kii jamonoy jamonoy waba maanaam jamonoy feebar genre coronavirus bi amee ñaaree suñu soxla bi day wax ne la gën mooy di ko moytu euh, di ko moytu euh, ndax léegi-léegi nit ki bés jot noonu muy noonu muy lënkale noonu ay microbe ma naa génn ci moom ak yu yooyu daal am na lu am na mu ko teewloo tut loolu ab istidraak la ab dagdabaatal la ab leeral la euh, mais sujjóot am na ci bërëb yoo xam as loolu mooy aslu bi waaye ala kulli xaalin Eh, sujjóot biñ tere sharia mooy as sujjóot bi sab'ati a'daa ñu ma ko leerale